kon njëkk góor ak jigéen maanaam ndaw jàppaat leen ci liggéey bi di wuy si ci woote yi li ñuy laaj ku ko ko li laaj ñu di ko joxe ñun ñëpp nu di ko joxe sax laay wax ñu di ko joxe te ku ko mën a weesu nga di ko weesu ndax loolu rek moo yëwénal liggéey bi waaye loolu rek moo nuy jariñ loolu nag suñ ci nekkee mën nañoo bañ xoolaat leneen mën nañoo bañ xoolaat keneen mën nañoo bañ a xoolaat feneen